Seex Mustafa santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa Seex Mustafa santal fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa nelaw yaa Mustafa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa te dal nang nelaw yaa mustawa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa wala yaara yu may yaay borom xaas ni mustawa muhammadu abdalahi ax nii bi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 te bul faale ko wuy see ka farje ki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw ne yaa wat ña daawoote ña daawaate Moustapha ngay woo nee nañu waaw nda Cheikh Bamba yaay donoom ku koy sikki sakaareere Cheikh Amdi Moustapha ci waaw mbaa ci ne day koo xam ni kii ne naw nañ ko de yoon wi naw na ko waaye nun ñiit ci raw ne sëñ Modou sa maam ji baax ja bi muy def fondation bii ne booba Touba day matul téeméeri kër ne te kër yëpp booba kat ay néegi ñax dong la loolu mën a def fondation nee loolu ku fa mën a def fondation bu tol nii ni jumaa ji. am na luy ñëw loo xam. nee am na luy ñëw loo xam. ne fi mu nekk nii lu Touba rëy rëy. ne jumaa ji mat leen jumaa. ne leneen lu fi yokk it. jumaa ji mat ko jumaa rek. ne te sëñ Modou Moussa Mbacké moo ko fondation. waaye dëkk bu matul téeméeri kër. ay néegi ñax rek. néegi ñax rek. nga def fondation bu day nii. nga fa fondation bu day nii. kooku xam ne na ne kooku xam na ne xam na liy ñëw ginnaawam. moo tax bisam bii. moo tax bisam bii. saa bu jàllee. dañ koy nammaat. dañ koy nammaat. waaye namm leen nag yéen ñi nga xam ni. yéen a fi nekk.